émettre des doutes par rapport à la population sénégalaise ou population africaine D'abord, la première chose condition de conservation du vaccin Le mhm. vaccin est bon, vous bu que Pfizer Il y a moins 80 degrés Celsius à moins 70 degrés pour conserver ko. Mhm. déjà c'est un problème c'est des frigos de à grand froid qui ont conserver bu dee beneen si euh, il nous faut au moins moins 20 degrés pour nous ko conserver condition est noonu en Afrique Nous avons une situation normale rek le courant dafay fan di couper je les ko bu énergie utiliser pour conserver loolu jafe la man ca Njàmbur wala Kajoor hmm. li ci ëpp ci suñu médecins yi bu daan dem infirmier di vacciner ci dans les régions yi ma xamul dañu daan yor benn glacière def ci glace hmm. jël vaccin yi dugal ci biir bu démé vacciner ñu loolu lañ xamul nga xamné fofu condition de conservation yi méttiwul woon te comme nak am na yeneen type de vaccin yo xamné conservation yi fofu la bu ma doon joxagn sama waa réew dama na leen bu ngeen jëlee yu mel non ci la sama xel di gën dal mais bës bu condition yooyu réunir c'est-à-dire ñu am ay frigo yo xamné ne mën na contenir vaccin yi et tout ndax di nga hmm. wolu vaccin ba léegi waaw manam bu condition yi réunir loolu comme ni conditions yi réunir ba paré nga xamné tay bu nékkone dañu mëna dem ba am conditions yi ñu ko conservé nga xam ne mi ngi né taxawé né conditions yi moom déjà gisuguma ko. muy benn mu tolloog même même pied d'égalité ak yeneen yi xam si moom laay wax man vaccin à virus atténué. momay may gënal ma jël vaccin à ARN. ndax virus atténué bi mala la bo xamné ne doomu aadama la boo xam ne astaghfirullah mbindeef la boo xam dindi nañu dangaram. ba dindi ko ba pare dugalal ma ko te boobu tàmm naa koy jël ndax lu ma xam ba pare la bii nag comme ARN la te durant ñuy defar protéine bi mutation mën na am à tout moment te man mutation limu mu indi ci parce que yaakaar na virus bi rek ngi dégg mutation yi mu def moom jëmmi virus bi ci boppam gis na mutation yi mu def nga dégg ñu nan variant tel variant tel variant tel li ko indi moy ay mutation te mutation yi ni mu amé ci virus bi non la mën amé sama biir yaram non la mën amé ci yaramu nit mi ngi dépendre ci nit ki ban environnement la nek ak yeen condition de vie lay dund est-ce que mën nga ñëw ci mutation yi yeen conséquence la mën am ci yaramu doomu adama bi waaw mutation mom saa su amee rek ci génome mu doomu adama mën na indi façon doomu jangoro ndax bëri nañu xam tay président exemple ngi dégg cancer

defaratuñ ko defar nañ beneen boo xam ne nuróowul ak bañ ma daan defaral kon biñ ma defaral sama yaram du ko xam comme xamu ko organe ba mu nekk moo xam ci foie la moo xam ci utérus la moo xam ci nangam la dañu koy attaqué te buñ ko attaqué mu daal di koy modifier yàq organe boobu ñu ne am naa cancer. Hmm. ndax modification génome boobu kese moom moo ko waral. mën na jógee it ci par exemple alimentation li may lekk par exemple les produits aromatiques yi may lekk par exemple moo xam ay boissons la moo xam je sais pas ay ay ay médicaments yu may jël la moo am ay produits aromatiques yoo xam ne si dafay accumuler wu ci samay organe fenn ci samay organe bu modifier ma sama génome bu ko modifier tamit mutation dafay am mutation boobu noonu mën ma créer. professeur bu la dégloo ak mutation yeeg lépp comme mën nañ jàpp ni vaccin bi moo gën a dangereux feebar bi. bon man xam nga euh, bu jàngoro amee dañuy fexe jéem nuñ ko apaiser. Mm-hmm. waaye li ma gënal moy apaiser ko ci condition yo xamni ne si de bu dañee duma indil benen jangoro bu may xaar. Mm. parce que rew mi ma nek amuñu doole dañu new doole comme néew nañu doole gis nga Covid bi rek jaf jafe yi ci am ngir résoudre ko motax suma su dañ koy dindi waye duñ fi bayyi mukk leneen lo xamni li dañuy andal ak dut ñu dindi ko d'une façon claire boo xam si bii bu dañee day yaakaar nañu ne leneen lu ko indi leneen du ci àndaale booba yow ban vaccin nga yaakaar ni moo gën ci nga xam ni moom nga cité yëpp mooy bu russe bi bu français bi bu américain wala bu chinois yi. waaw wax naa ko sànq nee naa la chinois yi ñoom ñoo fi defar vaccin bi xam ne si virus atténué la. ñoom mooy bi ñu tàmm. ñoom ñoo fi defar ñoom Sinovac ñoom ñoo fi defar vaccin boo xam ne dañu jël virus bi wàññi dooleem dugalal ko doomu bobu xagné pourcentage bi ñi ngi wax 70 et quelque donc mo gën faible par rapport ak bële ci pourcentage de réussite bi. mais pourcentage de réussite bi ñaata la yeneen. aux environs de 90 la ñu wax muy bu ay Moderna ak Pfizer ñom néñu am nañ pourcentage boo xam ne aux environs de 90 mais bi ñu né 70 la mais 70 de réussite yo xamné ne na mané du am effet secondaire. Mhm. wala conséquence bu ko laajee amee tamit foofu la gën a moindre man ci la sama xel di gën a dalee par rapport ak beneen bi xam si déjà condition yi ñu ko war a conserver sama réew rek mën na ko modifier parce que man mhm. ma baax sax seen réew mais imaginez